بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 أنتاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنتاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل misaal ya tuddee na ko awa booro mii moom mooy soxna awa su mag ci moom la eh, maam jaara mii toog moom la fi fekk si waaw moom mii la ko tuddee moom la mayam jëkkëli moom la ko tuddee yàlla na ko yàlla def mag te muy mag mu am barke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 yal na yàlla bàyyi ko fi ba ñu di ko nii ñu ko yeewee di ko tudd ñu yeew ko di ko maye te ñëpp fekke ko kenn bañ koo wuute barke Seydina Muhammad ah yàlla dafa dogal nag bi mu fi ñëwee ci fii ci kër gi yàggul yàlla dafa dogal bi mu fi ñëwee ci kër gi yàggul waaye ah, bi mu ñëwee itam waa koñ bi dalal nañ ko xam nañ ni xam na ni koñ bi ñu baax ñoo fi nekk ndax bisub teyam bi presque yëgalu ko kenn ci koñ bi bis bi waxu ko kenn waaye loolu yëpp xat-xat eh, eh, diggante bi mu ñëwee ak bi lii amee moo ko waral du lenn nag ndax bu doon tey jii Selmong la fa mu dëkkoon baayam dëkk fa mu juddoo fa yaroo fa su doon foofa la kon jàkka yaak jumaa yaak ilimaan yi ñëpp danañ ñëw waaye ngeen xam ni xat-xat diggante bi mu ñëwee ak bii soxna si yeewee ko moom moo tax ñëwul di ko wax ndax bu nit boo nekkee ci yenn xat-xat yi da ngay am jafe-jafe tuuti waaye nag mi ngi sant yàlla bu baax ndax ay kilifaa ngi nii toog ñaar ñii koñ bi lañ dëkk te dañ da leen koo wax rek ñoom ñaar ñu daal di ànd ñëw kon nag nee na mi ngi leen di sant di sant dëkkandoo yi itam ak xarit yi ñi mbooleem koo xam ne kii ñëw na ñëw nga fi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ah kii itam baayam nooy bàyyi xale bu jigéen bi ñuy tuddal kii mooy baay bi kii rakkam la ñoom ñoo ñu mayoon xale bu jigéen bi bañ leen fa fekkee lépp dañ ñu ko yombalal keroog baay kii bañ demee ba néegam fekk ko fa waxtaan ak moom la mu ñu wax ba tey mi ngi ci ñun mooy man bëgguma dara comme xale bu jigéen bi moom bëgg na ko ku góor ki bëgg na ku góor ki xaadim la tudd kii maam jaaral la tudd jeex na bu subaa dinaa dem ci sama yaay waxtaan ak moom li muy doon doon kilifa nii bañ demee loolu la wax dinaa dem ci sama yaay yaayam a ngi dund dinaa dem ci sama yaay ma waxtaan ak moom lépp lu ma ciy dogal bala ma cee dogal dara di leen jàppal bis waaye bu subaa ca ngoon incha allahu taala dinaa leen woo ni leen waxtaan naat sama yaay te xam naa dinañ déggoo ndax sama yaay mosuñoo réeroo te kilifa la bu ko neexoon mu dogal li muy dogal def li muy def door ni ndey naa lii ba ñu mayee ba ñëw ca kër ga war koo muur mu sëy si wax na fa wax ju rafet Top gim top ci ginnaw magam ji loola firnde wat bisub tay bi ñom ñaar ño and ñew yàlla na yàlla sàmm leen sàmm seen jaboot xaadim nag nee mi ngi sante ñep di gërëm ñep di sante bayam bi nga xamni moko yore mu doon xale bu tuti juddul lu ko yar ko ba mu doon magum jëm te bàyyi lu ko dara nak ba tay lepp lo xamni li xewna ci mom ku mu am dina la indi lu mu ci mën def lu bax dina ko ci def lu mu ci wax lu bax dina ko ci wax man mii nag baayam bi day sama doomu ndijaay ma wëlbatiku di denc seen rag waaw man maay denc seen rak ñu doon ñoo xam ni ñuy wax man mii defuñu ma ab goro dañ maa def comme ku ñu bokkal ndey ak ndax samay doomi ndijaay lañ ñu di leen xamal ni cant gi am na fu muy tàmbalee waaye amul fu mu yem nee na it mi ngi sant awa booro mii nga xam ni moo jiitu ci kër gi ndax sonalu ko benn yoon keroog ba ñuy dem di takki xale bii dañuy am tiitaange pour wax ko ko ba ma nee ko xaadim awa booro ndax waxtaan nga ak moom dani ma loolu amul benn problème wax naa ko ko awa booro nee amul benn problème waaw nee na bu ñëwee dina ko uuf ni mu ko war a uufee te loola la def bu ko uuful woon ni mu ko war a uufe kon bisub tey bii lii du am tuddee ko doom ji wëlbati ko sant ko gërëm ko moom mii nga xam ni moom lañu fi indi mu topp ci ginnaaw itam yorul ay diggi biir kee yorul diggi ginnaaw mais moom it yorul déggi biir ba mu dikkee dafa topp ci ginnaawam def li ko war def awa booro muy xaritam def ko muy ndeyam def ko léppam kon nag moom ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko jàmm yàlla na yàlla sama borom dolli ñu tawféex ñun ñëpp nag defal ñu ay xéewal yu baree bari yu wees suñ jot sëy bi yàlla def ci barke bu baax a baax doom ji ñu tudd yàlla na ko yàlla def mag ba ñu fekke ko ñun ñëpp ñu muur ko muy war a sëy ci barke yonent bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def siyaar nañ ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp yàlla na sama borom dolli tawféex bu baax Omar ñoo ngi leen di sant waa Silma waa Silma gi bàyyam dëkk kii xaritam la du ñu tàggoo bi ma tuddee ba pare moom laa jox mu ñaanal kii moo xaritu rakkam ñoo bokk ñooy ànd ñooy ànd guddeeg bëccëg tuddee na ko doom ju mag di ndaw di jaay awa booro mi tudde na ko doom magum jëmm la kim ko tudde mi ngi ak soxnaam ak ay doom kon nag ay mbokkam kii kii ci Omar lay ne kon yàlla na sama borom dolli tawféex dolli jàmm dolli ay xéewal defal ñëpp mucc ak mucc le ci barke yonent bi waaw ñii ay doomi magam lañu ñii doomi magi Omar Mar mii lañ ñoo Omar Mar ñoo bokk ndey ak seen baay dafa dafa dafa dafa wàcc liggéey at yee passé ci ginnaaw waaw yàlla na sama borom dolli jàmm dolli tawféex dolli xéewal kee mooy taawu Omar Moussa ngi nii toog mooy taawu Omar mooy magi xaadim mii waaw moom it xale ba mu juddoo ba léegi musta jóge ci ci tànku baayam ba tey nii ma nga ci at atelier baayam bu xëyee di ko liggéeyal di dégg ndigalam di aw ci li bëgg di bàyyi li muy tere mu ngi nii toog yàlla na ko sama borom defal jàmm moom it waaw ñun sant nañ ñëpp xaadim ñoo ngi lay sant yow itam ndax moom mii ba mu nekkee ci dëkk bi nekk xale di góorgóorlu di dugg ci lu nekk mu liggéey di liggéey di liggéey ba mu demee ba lii nga xam ni moom lay def mu wuy si ko mu xam ni moom lii mooy mooy mooy liggéeyam la ko ca war yëpp def na ko bu dee tranga la def na ko ci baayam bi bu dee waxtaan la waxtaan na ko ay ak ay bokkam te nit nag amul lu dul way juróom ak ay mbokkam te mbokk yi kenn rawu ci baay ak ñi nga bokkal ndey ak ñi nga bokkal baay ak ñi nga ñi la may soxna nga di ci am ay doom te ñoo ñëpp mi ngi lëkkatoo ñoom di seq ak ñoom jàmm waaw waa koñ bi nag na ngeen xam ni moom mii ñëw na fi day def ñaan waaye ñoo ngi leen di seereer ni papaam ku ko gërëm la papaam ku ko sant la papaam ku ko ku taxawu papaam la lu mu man ci lu baax da koy defal baayam baayam a ngi nii waaw ñun ñi ko jur ñun ñi sepp seq ko kenn merewu ko ci yàlla na ko sama borom dolli jàmm dolli ko tawféex defal ko liggéeyam mu gën a jëm kanam ndax bu jëmee kanam rek ñun ñëpp ñu jëm kanam ndax moom mii jàmbaar la wax dëgg yàlla lépp loo xam ne li mi ngi koy def bala mu ko def da waxtaan ak baayam li muy xat-xat-xat ajjuma bi nga xam ni du ko liggéey saa yu xëyee ma nga ci atelier papaam toog te am na xale yoo xam ne tey ni mu mel nii ak li ko yàlla def ci moom su doon am na xale yoo xam bu doon ñooma seen papa dañ lay dañ koy dégg rek ñu naan def na nangam dem na béréb sangam def nangam waaye ajjuma du jot nga jaar atelier papaam te fekkoo ko fa te lu muy wax dina ko bala mu caa def lépp loo koy wax bala mu caa def dara dina waxtaan ak papaam waxtaan ak ñun ñii nga xam ni ñoom ñuy ay rakki ay ay ay ay ay ay kii ay doomi ndijaayi baayam lañ kon yàlla na ko yàlla dolli jàmm dolli jàmm ci kër gi dafa dalal dalal ko kër gi mu dëkk nii yàlla na ko sama borom dimbali ba bu ba mu ba mu ba mu sax fi lool yàgg fi lool ànd ak. nee na boo ne woon su ma fekkee jamono yonent bi moom laay àndal jàkk ja nekk sa koñ doo fa jullee soo fekkoon jamono yonent bi tamit doo ànd ak moom boo ne woon bu sama baay doon dund lu ma digal ma def ko lu ma tere ma bàyyi ko dëkk ba nga nekk say magu baay nekk fa ak say rakku baay ak sa mag xamalu la dara bu sa baay doon dund tamit du la xamal dara fa ñi ngi leen sant yeen ñëpp di leen gërëm wax dëgg yàlla aadama nekkul taawam man may taawam ndax man la njëkk a gis aadama aadama mën naa ne ñun ñoo ko juddulu ah su doom melee li ndayam nag ah wax dëgg yàlla dina am si moom yaakaar ndaxte yaayam wax dëgg yàlla sëykat la muñkat la xam naa ci moom loolu bu baax a baax ndax li may nekk nekk xale muy ànd ak sama mag fekk na ma fi ndax diggante démb ak tey la rek mën naa ne yàggul aadama xale bu ndaw la wolof nag moo ne jongoma ak dàll ñooyam jàppalam lay fajal waaye bul ko bitar ñi saa yoo découvrir jigéen rek xëy na amaana nga gis lu ko naqari kon bi mu fiy jógee keroog nee naa ko fii nga nekk ni yàlla moo fi nekk waaye fa nga jëm tamit yàlla moo fa nekk kon nag bu ragal dara ginnaaw ba nga amee ay ñaanu waajur ah ñu ngi leen di sant parce que yéen yéenay mbokkam tey jigéen kenn du ko lekk kenn du ko naan su gisee ku mu bëgg ah mënoo def lu dul jox ko ko fii nag cees ñun daanaka duñ fi gan ndaxte ku xam jàkkay maam Galaay suñu maam la Galaay Gara Sànke ah, waaw Seex Booy suñu maam la Kuutaay Yàdd suñu ndijaay la kon defe naa ñun xam nañ Cees bu baax a baax ndax aw Seex Booy defe naa ku ne xam na ko moom it da daan yëngu ci bagage yi maam Galaay it defe naa ku ne xam na ko ndax ñu ngi denc ci biir jàkka ji suñu maam la waaw ah, wax dëgg yàlla ji leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di jiital sant bi tamit si soxna Awa mi ñu tuddee doom ji parce que xëy na su amoon déggu ginaaw kon defe naa du boot waaye aadama tamit su amoon déggu biir kon tamit du neex a boot parce que xale bu ndaw la judduwul saga maa judduwul man mi bàyyee masamala ak moom waaw ah, di sant sami sëñ xaadim yàlla ñu ngi def ñu soog a gisee waaye man la ko bàyyee la man defe naa waruma koon bàyyee sax daf ma ko waroon magale parce que defe naa aadama man dama jàpp ni sama rakk la dama wax chaque jour kon nag maa ngi leen sant yéen ñëpp di sant yéen ñëpp parce que suñu bàyyi ngeen suñu maam ngeen waaw jigéen nag moom sëy rek lañ koy doyee sama yaay dañoo masal di toog benn jour ma koy wax waa yaay la moo tax wolof naan kéwal du tëpp doom ji bët mu ne ma kéwal gi dafa dafa ànd ak doom ji si àll bi bi ñuy for lekk ba si yàgg ñu geesu gis baay ji nday ja tëb dem toppi baay ji baay ji dox ba si yàgg geesu ne sa doom ji du ñëw mu ne ko dina ñëw mu ne ko ak ñag bii dina ko yàlla mu ne ko dina ñëw ñu ñu doxaat ba muy ñaari yoon bàyyi ji gestu ne ko sa doom ji ñëwagul de mu ne ko mi ngi si yoon bi de dina ñëw de ñu ñu doxaat ba si yàgg bàyyi ji gestu gis dom ji tëb ñag bi topp si ndey si mu ne looloo tax wolof ne kéwal du tëb doom ju bët kon nag arama su jaaree fi ndeyam jaar wallahi bil kitaabi laay wax kon defe naa deseluñu dara ndax ndeyam ñun ñoo ko desel waaw bokkuñu lu dul ak awa waaye dañuy wax askan boo fa takkee soxna doom juddu fa deret jaxasoo na kon xaste jeex na mooy lii tamit ah wax dëgg yàlla masuma ko gis mu fay lu mu metti metti sama kii moo gën a metti safara man suma ma baaxee xaw ma cigarette njëgam juddoo Dakar màggee fa yoroo fa moom moo tax ndax masuma ko ñeme ma masuma may kanam gu ma ñeme lu may wax wax na ma ko ca ginnaaw kër ga su dugg see si kër ga xooluma gisuma wax dëgg yàlla ma koy sant di koy gërëm di leen sant yéen ñii seen yéen xaarim ak yéen ñëpp ñu ngi leen sant di lay gënam wax nag dafa yombul ndax soo nee dama ne rek raw nga buum bi teg ba di saf kon mën ñu def lu dul am si sëñ Xaadim mi ñu ko dénk yaakaar waaye mën ñu def tamit lu dul am si suñu doom yaakaar parce que nag yàlla bu yàlla tas yaakaar li ñu siy njor si lu rafet lépp yàlla na ko yàlla def waaye lu ñu siy ragal tamit yàlla ñu ko yàlla dàqal dàqal ko mbooloom jullit defe naa man doomu maa gën a ndaw ci famille bi waaye ma ñëwoon doy na ndax séddee na ma mag laa déggante maag moom téléphone boobu ba léegi maag moom bokkutuñu kër yorul sama ndékki donte yoroon na ko ba takk soxna maa ngi ñaari soxna tey alhamdulilah nekk ci kër gu mag yi moom mu nekk ci këram bi muy jógee aéroport xamul këram man la teg xaalis bi lépp sama loxo bi ñu koy jënd ak bi ñu koy fondation élevé ba kuuleeg raax lépp si sama kanam li may nekk nekk xale ma la ko jox jël njëru kër gi teg ma na ma jëndal ceeb ak diwlin dépasse bi nañ ko jëlee si boutique ba dama lay wan yoon su ma demee ba samp kër tey wax dëgg yàlla dama ko koy sante moom bàyyi la du mag baay la man mënu ma koo fay yàlla na ko yàlla fay wax dëgg yàlla lépp lu muy sonn si njabootam ab képp kuy sonn si sa njaboot yàlla boo rëcc loo doon sonnee si sa njaboot wax dëgg yàlla ñun mënuñu lu def di sant rek di gërëm eh, fa tabaarakallaahu kontaan nañu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf wax dañ ko koy wax kon lépp nag ci moom la bu meloon neneen ba mu doonoon beneen kilifa kon loolu duñ ko ñëmee ci moom mook mook mook rakkam ji ñoo yem kii moom moroom laa ko def ndax luma soxla lu ne damay dem ci mom ni ko nangam ak nangam la soxla jogal mu jog te sama baye la ndax sama rakku baye la kon nak jotaay yu melni su amé tamit il faut ko mo wax ko mo xaadim mi tamit sama rak la waye tamit ah rakku juma deggal la yi tamit waaw rakku juma deggal la parce que bu doono benen rak tamit peut être que mën ni mu démé ni du démé non waye nak rakku juma deggal la ah ñu leen sant nak deen leen aw boor mom tamit dañ koy ñaanal rek parce que ñun ñoo bokku ndawon nek ci kër gu magga lépp lu ngeen wax ci moom it ñun xam nañ ci dara dañ koy boole di ko ñaanal rek waaw yàlla baax na damaa mënewul wax nag waaye il faut lii dama ne woon rek il faut ma sànni ko ci ndax suñu baay bi il faut ñu gërëm ko ñaanal ko mu yàgg fi lool ban koy teeru yoonu màkka te loolu rek laa ko yéene nag yéenu ma ko leneen lu loolu wóor na yàlla yóbbu ko màkk indiwaat ko kese laa ko yéene te billaahi wallaahi tànk mu ngi fi di gudd fan loolu dana ko am incha allahu rabbi jërë ngeen jëf féetewu mag la ndax euh, Moussa nit la boo xamante ne nit ku oyof la boo ko xoolee si nu mel mën nga ni dafa ñàkk fu la wala dara fekk déedéet ku oyof la teg ci ku baax ku yëg ay rakkam ku fonk ay rakkam rawatina ñun ñii kon dañ koy sant bu baax ndax tey jii moom mii tey jii buñ demee ba gisatuñ suñu baay moom la ñuy gis de moom mooy baay kon baay lañ koy jàppee comme li nga wax sànq ci kooku rek moom mii suñu baay la mom bay lañ koy jappé ndax parce que moom hamiduna nasiruhu laysa yura audu waqatu fil bara ya lam yura al mudatu fa qalba sara wajil wal malaka jamu basara rabbi azu tijaratin khad tajara Mio be ada mal adam man sana an nahura a au sa yara nasia a madafaka de tahai yara nongi je glubah. Ada gi al kadimom monon na sape nyak. Wa sing hadimom dei sunu wu ala sun lip. Ada gi al bunute ve te bis bi warna mani e kadisere. Engir eh, kone kam nani sunu bay omar mani monyar. naa ni kër ga ban fay yaroo booba sax jàngagunu xasaayit nu jàpp te sëñ Tuubaa rek tax ah, man ak Madi muy ah, rakki soxna Moussa maar wax dëgg yàlla ba jamono dox ba nu yëkk ci xasaayit ñu jàpp te sëñ Tuubaa rek tax booba ba léegi nag nuy ànd sëñ Xaadim nag doon koo xamante bi wax dëgg yàlla sunu nit la sunu lépp la ba tax na lépp lu mu xewle rek ah, dinañu ci boole te sëñ Tuubaa tax loolu moo waral nu yëkkati sunu kàddu noo ngi ciy jégalu bu baax baax di ñaan baax sëñ Moussa moom itam suñu borom guddal aw fanam wéral ko té saxal ko suñu kanam barki xassay di ko ñaan suñu baay Omar maak suñu wéjur yépp rek noo ngi jégalu bu baax baax jërë ngeen jëf. ndax nit mom ni ngi koy téro rek la lay xolé ñu baax lanu wax dëgg Yalla ñu mëna téral gan lanu ñu mëna téru gan lanu ñu yaatu lanu kon nak suñu xadim ñi ngi ñaan Yalla suñu borom katanal la wéral la ba boy genn fi sa barab bop ngay dugg ni ko kii ñaanee te non noonu sax lay amee li ci des bëreetul ci kattanu yàlla yal na yàlla mottali lépp yal na yàlla sàmm lépp suñu kilifa yu mag yi nag yàlla na fi yàlla gën a bàyyi ndax mag moom bu baaxee dafay war yag yàgg ndax day dimbali ay gone te kon yàlla na fi yàgg gim ñoo gën dimbali yàlla gim ñoo dimbali Serigne Touba jërëjëf nasiruhu laysa yura fil bara yaalam yura rahmatunal mudatu fa qalba sara wal jinna wal malaka jaamu basara rabbi azu tijaratin xad tajara biu bisafin adam alfajara man sana annahu ra'a aw sayara nasira amada faqad tahayyara No que te